jullit bi ëllëg la woon ci la gënoon a jëm am na bis sëriñ bu mag bi woote ci njaareem ba ñu bari wuy ko mu xaaj mbooloo ma ñeenti xaaj benn xaaj mu ne leen féete leen ma penku benn xaaj bi féete ko sow bi ci des féete ko ndeyjoor xaaj bi ci des féete ko càmmooñ mu toog ci digg ba dal ne yéen waa penku ndax xam ngeen lenn lu mën a fajub xiif ñu ne ko ñu ne mbàkki xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk mu ne yenn waa soow ndax xam ngeen lenn lu mën a fajub xiif ñu ne ko ñun de xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk mu laaj ko waa ndeyjoor ñu wax loolu mu laaj waa càmmooñ ñu wax loolu mu ne yéen waa penku ngeen xamu leen lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk ñu ko déedéet mu laaj waa sow ñu wax loola mu laaj waa ndeyjoor ak waa càmmooñ ñu wax loola mu ne man ahmadu mii de xawma lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk waaye nit nga xam ne rek xamuñu lenn lu mën a fajub xiif lu dul lekk naka noonu itam amut lenn lu mën a faj mbëggalum bàmmeel lu dul jaamu yàlla ne leen man de yàlla dénk na ma mbalaanum sutura moo xam ne ni ku nekk ci àdduna mën nga cee sàngo waaye mbalaanum bàmmeel ku ne yaa koy ràbbal sa bopp te loolu de moom da koo giñ ndax bu waxoon te giñut it ñu gëm waaye dafa giñ ne giñ naa ci yàlla ne amut lenn luy jariñ jaam bi ëllëg bu wàccee ci bàmmeelam lu dul ak njub tallaahi sa yan shakhsu ghadan 'inda hulul ramsihi ghayrul huda daal di waxit ne àdduna ak àllaaxira dañoo wuute lool ndax àdduna koo bëgg gis mën nga ko gis waaye àllaaxira njaraan bokk lu ñuy def rek ñooy gisante démb nag andi woon nañ lenn ci bayiti sëriñ bay jaxate tey ñu barkeelu ci bayiti sëriñ Musaa Ka yuy fàttalee ëllëg téeram ba tuddee naa jéem a buurati fàttali dee ak fàttali ëllëg rek moo ko tax a jóg lam ci wax ci yonante ya ak boroom cër yu njëkk ya ak buur ya fañ jaaroon ak fa àdduna mujj ak ñoom téere bu rëy la waaye dañ ci barkeelu rek ñu tàmbalee ko ca lam wax ne yónneen ya ak ñañu leen daa yónni ñépp a ne mes loo ruq-ruq barab day ñëw fa bis di la wër ndegam ña daa dox ci kaw ndox mee ka dem asamaaw di xëy di dox looy garab ndeem ñoom la suuf mujj war ndegam ña daa yokki dik kuy bëgg a faatu ñu faj ñoo xëy ne mes lu ñu fiy def waaru jot na bu wér ndegam ña daa fettalanteeg noonu yàlla ak gaay daa defi kàngam ñëpp ñëpp nga wor a gaay yi dee faa jógal ñuy faj ku ràgg ku ne ba woppi dee ja ñëwee moo tee ñu farlu ba wér ndegam borom mbir yu toll nii ñëpp ñëpp a ne mes waajal te jóg sàkku ab yóbbal te jëf li la war lii doy na koy wax a wax lii doy na koy xam a xam ndem xejj yàlla yi ñoo dee man mi seen duma der loo xejj xejj du tee dee ñëw fa bis di la wër te loo ko jag te loo ko berndeel loo xeeji xeeji lu dee dee def sa gën di la wër te loo ko berneel lu dul sa du génn sa kër loo xeeji xeeji du tee dee def sa gan la wër te loo ko berndeel lu dul sa guru du génn sa kër bu dig ba jeexee ba ruugay wuy ji yàlla keroog mooy gën a métti juróom-ñaar fukki ràbb yu sar bis buñ la dee jangte jangte yóbbu suuli ba ñëw ba jooya daal ñuy xëccoo alal ji ak la jur xarit ya fàtte la say doom dal di doon ni alal jigéen ñi tenj la sàkket yépp xëy na wesar yenenti weer ci kanam ak lëf sa bokk yu ñëw garoo jabar ya te dootoo denc faw jabar sa doomi ndaw yi jirim yu mag ya fopp sa barab jigéen ñu ndaw ña di waaj tey seetu tey wuti far nga weete weet ne cundum yow rek loo jëfuloon dootoo ko am sa alal ji yóbbuloo ko fa far loo yóbbuloo boo demee lu jëf ji yiw du fa saf mu nakkarun wana nakiirun ñooy taxaw di la xar seen bolde yaa gën a rëy ngir doomi aadama yi ak jinne yi bu ñu booloo woon yëngal ko du wér boo tontuwul lañu lay wax bol de dal ci sa kaw bàmmeel ba naj la ba jiit ak jaan ya far na jasar bàmmeel ba xat ga mu xat ak tër ba jëm abada yaram wa ak lañ ci muuroon lépp def saxi wer lëndam ga ak sax ya ak wéetaay wu yàgg wa ak mbugale ak tiis yi jëm yowmal xiyaamati far nga sax ca loolee ba bis buñ dekkalee ba taxaw bay joxe téere ya mbaa ñuy peese jëf ya di ber kon mbokk nañuy bàyyi xel wax yii nga xam ne nii bu ñu demee ci alquran fekk ko fa bu ñu demee ci sunna si yonent bi fekk ko fa bu ñu demee ci njàngaleem Serigne Touba fekk ko fa waaye bu ñu demee ci mbindum mag ñi Serigne Touba yaroon it fekk mu fees dell ci seeni bind te ñoom ñi ñu ko doon fàttali ñoom ñëpp war nañ ñoo jox misaal ndax kenn nekkatu fi kon nañu bàyyi xel bu baax a baax yàlla nañu suñu borom sënk ci siraatal mustaqim ñoo ngi fàttali sunu mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe bi yëpp waa daara Hikmatul Yawmi te lépp jëm ci jàng ak jàngale ak yare ak dimbalante ci sunu biir ngir liggéeyalee ko sunu borom ngir fàggu dundub ëllëg ku ci bëgg xam dara wala nga bëgg cee doon dara wala nga bëgg cee def dara nga woote ci 77 633 77 56 wala nga woote ci 77 693 72 55. xikma nag day tënku yaa koy tënki ngir jariñoo ci rajo boobu day sekki moo tax mën a wuy la te wuy balaa jariñ nga toj ko jot ca buy ba baa lay jariñ